bokk na ci tuuma yi nga xamante ni ñenn ci Sénégal yi daan ko teg seen kaw mën nañu tuuma yooyu bu nekkoon dëgg tey jii nag duñu seem seeti benn kër sëriñ ñi nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoom ñoo ñëpp mën nañ ne seen génn bu njëkk ko njëkk a jubale mooy fi ni mooy dëkk bu sell boobu di Touba moo di président Ousmane Sonko ni ko Bassirou Diomaye na ko ni ko démb démb mu dem seeti ki nga xamante ni moo di sëriñam di sëriñ Cheikh bu sëriñ Saliou Mbacké ñoom ñooñu nag ñu leen daan wax naan ay salafiste lañ ay terroriste lañ wala force occulte lañ wala sax ñu leen dem tuddee li nga xamante mooy ay ibaadu lañ loolee lépp nag mën nañ ne bu fekkee ne nit ki nag dagoo nga mën nañ ne du dem seeti benn kër kilifa diina wax ma daa sax kilifa diina koo xamante ni si tarixa la nekk kon loolee lépp ñu naan teg seen kaw daal mel na ni loolee yëpp mën nañ daal nañ koy faxas mu jàll fale kon mel na ni kon nekkul dëgg benn yoon moom mii nag di Ousmane Sonko comme ni ma ko waxee léegi rek démb moo nekk génn mu njëkk fi nga xamante ni moo di si Ndakaaru te foofee nag fa mu ko jubali nga xamante ni moo di Touba dem seeti ki nga xamante ni moo di sëriñam mu àndoon nag benn délégation boo xamante ni nag délégation bu mucc ayib loon yëkkati fa kàddu tamit di ñaan ki nga xamante ni nag moo di sëriñ bi mu ñaanal leen ndam loo xamante ni daal di mucc ay lay doon fi nga xamante ni moo di si réew mi waaye tamit mu ñaan si réew mi tamit jàmm joo xamante ni ju sax dàkk lay doon ba nga xamante ni ñëpp daal dinañ si daal di mën a gis seen bopp Touba googee sax mën nañ ne ay jafe-jafe ndox képp moo fa nekkoon waaye nag mën nañ ne fan yi ñu génn rek ñaari fan ci ginnaaw wala ñetti fan ci ginnaaw nduma ndox ma commencé naa balaat bu baax a baax a baax ginnaaw bi nga xamante ni fal nañ fa njiitul jëwriñ bu bees boo xamante ni moom la ñuy wax Cheikh Tidiane Dieye. Cheikh Tidiane Dieye moom mën nañ ne sax demoon na fa benn tukki neegi meeku waaye démb nag jot nañ benn audio boo xamante ni daal ka say wax mel ni daal day yàq dara wala day tilimal sax. li nga xamante ni ñoom Ousmane Sonko def nañ ko ci dëkk bu sell boobee mooy fexe daal ba ndox mi daal di commencé waat ñëw bu baax a baax ndax ndox yooyu nag bu ngeen seetloo nag Touba forage fa nekk bëri nañ lool waaye forage pour ñu dox mooy problème te la koy waral nag du lenn lu dul motoor yu paan wala sax ñi nga xamante ni ñoo ko yor maanaam ñàkk jël xaalis ba dugal ko feneen foo xamante ni bokkul ak fa forage war a jëm